ñu ne ruqayatun wulidat lilhaadi aama jalin wa fi lmadinati maatat miitat alkarami kubra ladabni hichaamin min banaati rasulina ruqiy ruqayatu faftax qaafaha taqumi wafaatuha bacda caamin tumma casharati ashhurin wa cishriina yowman maqdama alwasimi wa kaana cuthmaanu عن بدر تخلف منها wax ne ne mu ngi juddu ci bi yonent bi amee at ak ñett yàlla moo ko def ci waxyu la yonent bi xamee ne Fatima Aliyun lañ ko war a may moo tax ñu ne bi Omar waxee Ali ne ko yaa war a takk Fatima daf ne ko maa lii min cheyin illa diraxi mu ne ko man awma ma dara damaa ñàkk benn mbubbu koŋ rek laa am mu ne ko waaw sa mbubb koŋ moomu yonent bi mën na la ko cee may ndax xam nga ne yonent bi moom alal tax ko jóg ko rek lay xool moo tax yonent bi sallallahu alayhi bi mu mu defee sëy bi te can gi di mbubb koŋ moomu mbubb koŋ bi di valeuru ñeenti téeméer Fatima dafa jooy yonent bi ne ko maa laki tabkiina yaa Fatima fa wallahi laqad ankaxtuki aktarahum ilman wa afdalahum xilman wa awwalahum salaman yonent bi ne ko lu tax ngay jooy yow sama doom giñ naa ci yàlla ne kii ma la may góor ñépp moo leen ëpp xam-xam góor ñépp moo leen gën a lewet te itam moo jiitu ñëpp ci lislaam kon ki ma la may am na qualité loolu doy na tagg loolu doy na tiitar ki fi ëpp xam-xam ki fi gën a lewet ki fi njëkk ci lislaam loolu doy na tagg loolu doy na tiitër mu ne ko kon ki ma la may ko baax la moo tax ñu ne Ali ibnu Abi Talib bi sallallahu alayhi waxoon na ko ne ko may naa la soxna si wante soo demee ba joteek moom bul wax ak kenn ku dul moo tax ñu ne yonent bi woo na Seydina Ali woo Fatima bi Fatima ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa jàpp ci ndox ba noppi daal di koy ba mu jàppee ba noppi ca la jóg nag ñaanal ko ne ko allahuma barik fihima wa barik alayhima wa barik lahuma fi naslihima mu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga def barke ci seen diggante lu ñu am yàlla nga ko barkeel moo xam am moo xam alal la moo xam doom la moo xam lu mu mënti doon seen lépp yàlla nga ko barkeel moo tax ñaan googu baax na di ñaan ci sëy yi allahuma barik fihima wa barik alayhima wa barik lahuma fi naslihima loolu la yonent bi ñaanoon bi ñu mayee Fatima Ali bnu Abi Talib karamallahu wajha moo tax ñu ne yonent bi sallallahu ku fiiroon ci ay doomam yu jigéen la ban mosul nangu sax ñu wujje waaw loolu nag xam naa moo xam la tax waaw ndax lu jóge ci yonent bi sell nga te moom ak wujje moom dafa bëri ay mbir ba tax na itam ñoom sell nu sell goo xam ne ku leen bañ alku ba tax na itam wujjeeg ñoom mën naa jur musiba bu rëy moo taxoon yonent bi fiiroon lool nag ci ku ci ñoom ñuy wujje moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mas na xutba wax ne inna bani hisham hisham ibnu mughira istadanuuni fi an yan ah, fi an yunkixu ibnatahum ali ibn abi taalib yonent bi nee na xutba na benn bis ne ne a ah, bani hisham ibnu mughira benn famille la woon ñu ne ñoom daal ñu ngi sàkku ci man ndigal ci ne dañoo bëgg a may ali ibnu abi taalib ñaareel dañ ko bëgg a may daal seen doom wante man joxuma leen ci ndigal duma leen ci jox ndigal Aliou nag su fekkee bëgg naa takk ci ñoom na fase Fatima te takk ci ñoom wante sama doom daal lépp lu ko metti rek metti na ma moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne bi mu ko mayee Ali euh, bi mu mayee Fatima nee na céetal nu waaw moo tax yonent bi ne ne ne ne awlim walaw bi shaatin nee na soo takkee soxna na nga céetal donte sax ab gàtt la donte benn gàtt la sax bi ñu koy may nag moom Fatima moom Ali ibn mu ngi am ñaar fukki at ak benn waaw ñaar fukki at ak benn waaw boo xoolee nag saxaaba bu njëkk ba nañu daan teelee takk ak léegi ñun ni ñuy yéexee takk ëpp na Alioune mu ngi takk ci ñaar fukkeelu atam ak benn yonent bi mu ngi takk ci ñaar fukkeelu atam ak juróom ñu ne Fatima ñu ngi ko dàkkantalee al bokk na ci turam yi ñu bari ñu ngi leen di woye batuul yi wala batoor yooyu yëpp olof a koy yàq rek mais cosaanu tur moo di al batuul ci arab mooy bépp jigéen boo xam ne sa bëgg-bëgg du àdduna sa bëgg-bëgg moo di yàlla ak lu baax saa boo jógee jëm ci yàlla saa bu jógee di wut lu baax saa boo demee ba li say moroom bëgg ci wàllu àdduna ci fo ci pagaay ci def lu leen neex yow nga bàyyi loolu jëm ci yàlla mën nañ laa wooye albatuul ñu ne looloo taxoon ñu daan wooye Fatima albatuul ndax dafa dëdd woon àdduna li neexoon jigéen ñi mu bokkaloon jamono ci wàllu àdduna moom mosu ko neex yàlla rek ko mas a neex ak déglu baayam ak topp ko moo tax ñu ne wa tulqabu fatima bil batul linqitaa'iha dunia fatima moomu jigéen ju sell la woon yàlla may na ko ca sëy ba doom ju ñuy wax xasan ak xuseyn ak zeynab ak umu kalthum ñu ne bu mosaan di dox dangay ngay foog ne yonent bi mooy dox ndax ni ñu nuroo ni ñu niroo doxin yonent bi dafa rinki woon tuuti ñu ne wax ne ne soppoon na baayam lool niru ko ci lu bari looloo taxoon sax ñu ne rawantewul ak baayam ndax baayam a ngi ko rawee juróom benn weer ñu ne itam bi baayam faatoo nemmeeku nanu ne reewul banam ko fekkee waaw ki dàq ak kaf ak ke gën a mën a reelu nit ñi su taxawoon ci kanamam itam di def ay grimace am du tax mukk Fatima ree gannaaw bi bàyyam faatoo daal supporté wul woon des ci àdduna bi soxlaatu fi woon dara moo tax e, ñu ni bi bàyyam faatoo reewul ba nim ko fekkee moo tax si Hadj Malick si nee na benn waay mas na toog ba jikki rek mu xaqataay bi mu xaqataayee xaqataay bi foor lool Seydi Hadji Malick Sy daal di wax ne ki xaqataay kan la ñu ne ko diwul mu ne waaw xanaa dañ ko dikk àjjana ah, ku ñu dikk àjjana kay yaa war waaye ku xamagul looy fekki kooku waruloo xaqataay mu mel ni bi yonent bi sallallahu alayhi feebaree feebar bu metti te moo di mu jóg feebar bi mu feebar te war a wuy ju boroomam dafa woo si sittuna Fatima déy ko ne ko damay faatu Fatima siggi jooy jooy yu metti yonent bi waat ko bu mu ñëw mu ne ko dana faatu wante juróom benn weer laa lay rawe mu daal di siggi reetaan mel ni mosul am naqar nga xam ne kii yàlla rekk ko mas a saf nga xam ne kii yonentam ba rekk ko mas a saf moo tax ñu ne waxoon na ne bu faatoo nañ ko suul guddi mu ngi faatu nag ci weeru koor bi mu amee ñetti fan ca ñetteelu fan ba ca la faatu nee na itam bi muy gaañu mu ngi am ñaar fukki at ak juróom-ñeent am nañu wax ni mu ngi am fanweeri at wax ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa daan na diggal Fatima muy muñ ndax jigéen la woon joo xam ne daf doon sëye ku ñàkk wante sëyewul woon daraja xam nga doomu soxna yu bari wala doomu kilifa yu bari ñu ngay sëy waaye dret la ñuy sëyee te boo sëyee deret rek doo am doom yu barkeel waaw boo sëyee deret doo am doom yu barkeel yonent bi moom a jur kon nag booy sëy man danga may xam jox ma sama gëdd déedéet sëy ak jaamu yàlla la yàllaa ko moom waaw ki am alal waru cee wane alalam ki am daraja waru cee wane darajaam danga war a xam ni sëy bi ak jaamu yàlla la Fatima nag radiallahu anha sëyewul woon deret mais dafa sëyee ak jaamu yàlla moo taxoon mu muñal eh, Seydina Ali muñal ko lool déggal ko lool topp ko lool waaw daan dëbb sax ba la boo xoolee loxo yi gis ne am na ak coppeeku loolu lépp pour dabu barke rek ci sëyam et noonu itam la daan jaamoo yàlla ndax ku mënoon a jaamu yàlla la ndax wax nañu ne su masaan di nelaw yonent bi daf koy yee ne jaamukatu yàlla warul bëri ay nelaw waaye bu Aïcha daan nelaw dafay wax ne bu ko kenn yee ndax boroom xam-xam la xalaatkat la te xalaatkat bu ay nelawam doyul e, e, gis-gisam du xóot waaw loolu bokkoon na ci e, ni yonent bi sallallahu alayhi wa amee woon maanaa pédagogie ci wàllu yar ak ci wàllu jàngale kon tabaarakallahu mbokk yi xam naa ne waxtu wi moom li ci des bariwul mais ci ajjuma ji di ñëw incha allah danañu dugg ak yéen ci xew-xew bi nga xam ne am na ci xaswatu bani Qaynuqa mu di jigéen ju nga xam ne juif yi dañ ko defoon ak caay-caay goo xam ne naqari woon na yonent bi ak la ca topp ba ba ñuy àgg ci xare Uhud ak yi fi jaar yëpp incha allah fas yéene nañ cee ñëw kon tabarakallahu mbokk yi ñu nuyu ñi nga xam ne bind nañu émission bi. ki ci jiitu